Euh, dañuy ñëw rek comme niñ ko tàmm defee euh, at bu nekk ñëw indi suñu ziar euh, indi suñu contribution ci màggal gi parce que comme ni ngeen ko xamee groupe Futurs média ak lépp li ko tënk mooy groupe leader bi fii loolu la yàlla def te ñu ngi ñaan mu sax donc su amee événement bu toll nii dañ si war a am taxawaay bu mat sëkk moo tax dañuy ñëw avant pendant et après ànd fi ak suñuy support yëpp muy télé bi di rajo bi di journal bi di site bi di TFM religion ak bépp support boo xamante ne mooy yëngu ci biir du Futurs Médias waaw xanaa di ko di ko rafetlu di ci am mbégte te du du lu ma bett parce que relation bi ma am ak moom relation bu yàgg la te dépassé na xëy na relation sëriñ ak taalibeem euh, pour man relation yëg-yëg la te tey lii firndeel na ko ba ma demee sànq si sëñ Mountakha itam firndeel na relation bi ma am ak moom ndax comme lu may wax toujours euh, nit looy def ci àdduna rek na fekk nga gëm ko euh, ñun ay taalibe murid lañ du lu ñuy mbubboo du lu ñuy fësal dañ cay dund donc sànq ba ma demee si sëñ Mountakha ñun ñu jël parole ki koy jottalil jël parole moom mu ne déedéet nañ ko jox moom mu wax je pense que loolu ku mu doyul dara dootu la doy. waaw projet yi ñu am moom mooy tey euh, ku xam Groupe Futurs Médias xam ne que am na fi tànk euh, am nañ RFM Mbacké waaye fan yi li ñu bëgg teg mal ko mooy am fi siège parce que xam nañ ne que tey deuxième capitale économique bu dëkk bi Touba la. donc forcément il faut faudrait nga am fi tànk dafa mel ni rek avènement digital digital ñëw na numérique ñëw na képp ku adapté wul rek dañ lay largué donc il est important que ñun tamit ñu am fi benn taxawaay bu am solo en sus de li nga xamante ne dañ koy def bu màggal amee. le projet le projet d'impression. Euh, projet d'impression bi en fait euh, Futur Média comme ni ngeen ko xamee groupe Futur Média ba muy commencer rajo la woon après presse écrite bi ñëw. après TFM ñëw ak yeneen yi mu jur yëpp donc léegi dañuy dugg ci industrie dañu am benn société boo xamante ne Future Industries la tudd comme démarche bi ñu adopté woon ci média moom la ñuy adopté ci industrie te biñ ci njëkk a teg moom mooy euh, benn usine d'impression offset numérique ak packaging je pense que soo xoolee Afrique de l'Ouest mooy doon bi ci gën a mag donc ñu am suñu yéene nag lépp lu ñuy def dañuy ñëw tàggoo ñu jox mi ci ndigal waaye sànq sëñ bas ba muy wax di wax si sëñ Touba damaa xaw a aalu donc euh, ma jël décision ne euh, li ñuy njëkk imprimé foofu ay xasida sëñ Touba lay doon valeur cinquante millions ñu baaxee ko taalibe murit yi baaxee ko ñi nga xamante ne dañuy dem jàng ci université bi ñu ñëw incha allah